mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan Tanime TV tey ñu tasee genn gan goo xamante ni soxna Astou Gawane Gueye nekk fii ci Touba di politicien soxna su ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. sëñ Saliou ziar naa la lu bëree bëri di nuyu waa Tanime TV yëpp ak seen ay di am mbégte ak kontaan tamit jàkkaarloowaat ak yow. soxna Astou gëj nañ laa gis da nawet bi <laughs> waa gis nga politique nag du tout le temps ñu ciy nekk am nañ yeneen activité yoo xamante ni xëy na ci la ñu nekk muy liggéey bi politique aussi période la du à chaque fois nga nekk ci xëy na loolu moo tax ni xaw a raar tuuti rek mais ñoo ngi ci bu baax a baax. soxna su lu tax ni wax soxna su mu sox mu euh, Antoine Félix Diome wala bu président Macky Sall wala nga bokk wala. waaw dama koy wax euh, à chaque fois te dama koy waxaat je suis antoiniste parce que su ma bokkee APR c'est grâce à Antoine nit ku nekk nag lépp lu mu dugg lu mu mën di doon. ba ci diine lislaam sax yonente bi moom moo ñu jiite nga ñëw si tarixa euh, murit sëriñ Touba moom mooy kenn yoon wi waaye nag ku ne am nga ko ci ci koo jokk man nag sama sëriñ si APR Antoine Diome la moom laa jokk voilà. Euh, président Macky Sall tànn euh, Amadou Ba muy ki nga xam ne moo war a nekk APR yéen fan ngeen ci féete da ngeen a ànd ak Antoine wala kii Amadou Ba wala da ngeen a am seen fu ngeen di jëm. ànd ak Amadou Ba à 100 pour cent parce que ku xam Antoine Félix Abdoulaye Diome xam na ku bëgg président Macky Sall la ku koy topp la ci lépp loo xamante ni président Macky la bëgg na ko te ku nekk dégg nañ le président li mu wax coalition Benno Bokk Yaakaar parti APR benn candidat lañ am muy Amadou Ba beneen candidat bu génn bu dul moom kooku concerné wu ñu sax koo xamante ni da bokk ci parti bi moo tax ñun ñi nga xamante ni rek dañuy liggéey si ginnaaw Antoine ñun Amadou Ba la ñuy topp Antoine moom président de la république rek moo ko yitteel muy Macky Sall te lépp lu mu bëgg rek ci lay dox donc kon ñun ñi nga xamante ni ñu nag si ginnaaw nag amuñu lu ñu mën a def lu dul tamit topp si ginnaawam voilà. Euh, pourquoi am euh, Antoine laajut réew mi wala tànnuñu kon daanaka euh, ñetti at yi yëpp moo gën a sonn sax président Macky Sall ñi gën a sonn ci gouvernement bi ci la bokk. waaw parce que il ministre de l' amul benn ministre de l' boo xamante ne def nga li nga war a def di am noflaay ndax koo xamante ni biir réew mi yëpp yow yaa ko yilif kaara ngi askan bi yow yaa ko yilif euh, événement religieux yi yëpp yaa ngi ci CRD yi yaa ngi si euh, cérémonie officielle yi yaa ngi ci yaa ngi veillé aussi à chaque fois ci sécurité askan bi kooku soo defee li nga war a def dëggantaan wax dëgg yàlla waroo noppalu ba tax souvent sax da ngay gis ni di ko tooñ naan xanaa Antoine moom mooy président bu Sénégal parce que fépp ma nga fa donc loolu moo waral coonoom boobu noonu li ko war rek lay def ci réew mi voilà euh, bon laaj na laaj na wala laajul nag loolu moom bëgg-bëgg la rek peut-être bëggut moo tax laajul mais li ko intéressé mooy li nga xamante ni moom lañ ko jox mu ministre de l'intérieur di veiller ci euh, sécurité askan bi mi ngi ciy def lépp li nga xamante ni mën na ko ak lu mu mënul tey président bi amoon ci moom yaakaar ba jox ko yaakaar naa tamit yaakaar boobu rëccu ko benn yoon. Euh, tëj Ousmane Sonko. tëj mille soixante deux ci parteem tas parteem lépp day dellu ci Antoine. non loolu jeune ne suis pas d'accord parce que Antoine du ministre de la justice wu tëjul Ousmane Sonko justice bu Sénégal la amal yoon. donc ñi nga xamante ni tamit ñoo bokk ci parti bu Pastef ñu àtti leen li ma wax à chaque fois rek yow mi deful dara yaa ngi nii di liggéey sa liggéey di gàmmu gàmmu gu neex macha allah keneen keneen keneen kazalika réew mi nag dafa am ay texte ak ay règlement yoo xamante moo ko tënk képp ko jalgati ak koo mën di doon dañ lay dugal ci kaso bi voilà. ah moom moo joxe déclaration ne tas nañ parti Pastef de. parce que il est le ministre de comme parti bu ñu déclaré ci moom lay ñëw bu koy tas si moom lay jaar loolu mais parti euh, Pastef boo liiree bu baax dañ ko tas par décret du moom moo ko tas xëy na daa weexu donc rek te dañ ko war tas sax nag parce que parti boo xamante mën nañ ne depuis xëy nañu ñu condamné Ousmane Sonko je ne sais pas comme fait combien de temps déggoo fi benn problème Sénégal mi ngi dox ci jàmm xale yi ñu ku nekk yaa ngi liggéey activités yi moo ngi dox normalement donc parti boobu waratul existe ci réew mi voilà. parce que dañ koy considéré comme terroriste rek terroriser doomu aadama yi. li def président Macky Sall Amérique nag yuuxoo ko ba mu ñàkk tooxib ak soxnaam ak ñu mu àndal ñëpp en tant que ab président Sénégal. ñu yuuxoo ko foofu. njëkkeewu fi tey du fi mujj nañ intro ci histoire defoon nañ ko président ab du Diouf donc ñëpp bëgg la loolu sax daa wóorul bu ñuy nee waaw ñii dañ naan déedéet ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi peut-être di yuuxoo président Macky Sall am nañ naxar am nañ lu leen naxari peut-être am nañ droit aussi exposer seen naxar loolu la rek one on est dans un pays de démocratie du lu garaaw du problème. voilà. dañ ko def Amérique loolu amut kersa gun ci am tuuti Sénégal en tant que ay pays yu bari nekk fa ay président yu bari nekk fa ñu singali benn président rek di ko yuuxoo ànd ak soxnaam. waaw ah, parce que benn président boobu lañ bàyyi xel mais am na yeneen président yu fa nekkoon yoo xamante ni kenn bàyyiwu leen woon xel mais nit ki ci li muy vocaliser wu di ci focus loolu à chaque fois moom lay gis président Macky Sall yaakaar naa am na leneen lu ko gënoon a ëppal importance ëppal importance aussi état wu Amérique mu yóbbu woon ko fa. mais pas ay yuuxoo ak ay taxaw ci mbedd di di di di xëppante ndox et cetera donc loolu man maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax parce que damay wax à chaque fois ne président Macky Sall il est le meilleur président boo xamante ni Sénégal mosu koo am non seulement Sénégal mais amul ci Afrique bërki démb li am Ghana ñëpp gis nañ ko coup d'état Ali Bongo combien de temps combien de temps la def Gabon te pourtant li ci mujj ñëpp gis nañ ko Burkina Faso eh, armée ba moo ko yor. demal Mali la même chose pour Kagame mi nga xamante ni ñoom moom la ñuy tiitaroo def ko seen référence ñaata ñaata mandat lay laaj fii may wax yow su ma juumul cinquième cinquième mandat lay laaj xaw ma sixième mandat donc kon Sénégal démocratie am na fi tey lii nit sañ toog sañ a wax ku mel ne Baara Ndiaye moom mi ngeen di wax di jaay say garab ba mu neex la nga toog ci télé di chroniqueur jële exemple ku mel ne Sa Ndiogou di théâtre ba mu. daa non non waxuma dafa ay dama lay wax rek ci démocratie sénégalaise tey nit am na droit tey def lu ko neex yëg téléphone am toog wax lu ko neex président de la république dem ko tëdd këram tëdd nelaw te dara du ko ci fekk. donc démocratie boobu am Sénégal laa lay wax ne par rapport ak sous raison bi nga xamante ñun ñoo ñu wër kon ñun dañoo war a sant yàlla xam ki ñu am moom moom mooy kan voilà. Antoine bi mu toogee léegi nekk ministre intérieur lan la fi porté loo xamante ni sénégalais yi mën nañ ko cee félicité lu dul tëj bi. moom sëñ tëj bi laay bañ nga wax ko Antoine tëjul kenn non non Antoine tëjul kenn il est ministre de l' intérieur jugé wul acté wul condamné wul donc li muy veillé mooy sécurité askan bi ku nekk gis na bi mu fi ñëwee ba léegi. inauguré fi ay école sapeur pompier loo xamante ni mosul am Sénégal moom moo ko fi njëkk indi yokk ay poste de police xam nga sécurité bi tamit wax dëgg yàlla mu ci def lépp lu mu mën ku ne gis ne Sénégal euh, temps yi passé li mu traverse ci ay difficultés. te macha allah alhamdulilah mu réussir ko bu baax a baax kon Antoine moom yaakaar naa li mu fi def jëratul sax ñi di ko wax parce que mooy ministre de l'intérieur boo xam ne ñëpp wax nañ ko Sénégal su koo am ci cawarteem ci xarañteem ci bëgg Sénégal aussi di veiller ci sécurité bi nga xamante ni mooy sécurité askan wi sans compter nag ak relation yi nga xamante ni tey am na ko ak këru diine yi tey bu demee Touba nga ne ñoom ñoo jur Antoine nga dem Tivaouane barki démb la même chose gis nañ témoignage yi nga xamante ni sëñ Babacar Sy Mansour def na ko si nga dem Ndiassane dem Thiénaba et cetera et cetera donc loolu yaakaar naa nit ku baax am am am ubbeeku am yar am teggin rek la moo ko man mais nag du ñu bett ci moom parce que defaru sëñ Saaliw la yaakaar naa Antoine lu mu fi def moom euh, su ma ko doon wax fi laay fanaan pour bañ a guddal ma tënk foofu rek voilà. non dernière question yow Antoine ngay jàppale Antoine ñëwoon na fii ci màggal gi ne euh, inondation bi am Touba léegi jeex na. fexe nan ba mu kii bi nawet bi kàddoom di laata daanu daanaka ndox mi gis nga ni mu mel ci màggalu ren. inondation bi Antoine indiw ko président Macky Sall indiw ko yàlla moom mooy taw am ndoxam te am na loo xamante ni dañ ko war a wax muy dëgg gi ku ne xam na ne Touba zone yi nga xamante ni ndox daf leen sonal fu mel ne ay ndaamaatu kër ñan foofu ay point ban la dafa xóot Touba aussi suuf bi ban la du joor parce du naan ndox. am na suuf yoo xam ne bu tawee day jékki-jékki naan ba mu set mais Touba bu tawee suuf bi du ko naan ñu ne déet problème mu euh, nab bi ñëwaat aussi dooleeku si ñun am nañu kër guy mbind même noor kër gi day taa loolu état mënu ci dara donc donte def na ci ay jéego parce que euh, président Macky Sall defoon na ay genre teen yoo xamante ni pour nab bi la ci côté armée yi wàññi na ko bu baax a baax mais loolu mbiru yàlla la doomu aadama mënu ci dara. bu nee ndox mi jeex na tey tey ci guddi gi yàlla tawam ndoxam loolu kenn mënu ci dara mais en tout cas état def na lépp loo xamante ni mën na ko ci mbënd mi te boo xoolee tamit xam ne def nañ ci ay jéego bu baax a baax voilà et ñi nga xamante ni ñoom ñooy sini euh, euh, inondé euh, ku nekk aussi ñoo ngi lay jàppale ci ay ndimbal yoo xamante ni boo munta am kër dem feneen tamit di nga ci mën a dund kon alhamdulilah voilà et en plus tamit Antoine du du yor assainissement loolu tamit ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax assainissement dafa am ku ko yor muy Mamour Diallo loolu mooy liggéeyam bi mu fi ñëwee aussi peut-être question la rek mu mu tontu ci mais CRD moom moo ko yëkkati woon mais loolu tax ko woon a jóg nu ñu def ba sécurité màggal gi lépp jaar yoon loolu moo ko yëkkati woon mais côté assainissement ki ko yor mooy Mamour Diallo. di naan sëñ Assane Mbacke waaw alhamdulilah ñu yéene ko ko bu baax ndax suñu xarit la macha allah. voilà. li muy expliqué bi mu defee conférence presse ni ko tëjee wax ca tudd na ci Antoine lu bari. non man nag seetaan naa point de presse bi mais dégguma benn yoon mu tudd ci Antoine mais en tout lam expliqué loolu moom la concerné olof nag nee na wax bu feebaree nopp yi koy déglu moo war a wér Assane xamante bu baax. <laughs> soxna Sukkan ñu lay sant bu baax baax di la gërëm yan kàddu ngay kii yéen xale yu bare bari yi bokkoon ci APR démissionné na nee nañ du ñu ànd ak Amadou Ba duñ topp ci ginnaawam président Macky du leen tànnal njiit lan nga leen di wax xale yooyu. nga parti boo dem da nga fa war a am discipline du parti li ñu dogal ci parti bi nga respecté ko képp koo xam nga ne nee nga nag président Macky du la tànnal candidat mais am nga liberté dem fu la neex dëgg yàlla. Euh, monsieur Amadou Ba mooy suñu candidat di ñaan yàlla nag 2024 incha allah ñu élire que des premiers tours bu soobee yàlla loolu la ñuy ñaan ci loolu la ñu focus ci loolu la ñuy liggéey ku am beneen candidat nga jël mais ñun Amadou Ba mooy suñu candidat. soxna su Tanime TV mi ngi lay sant baax di la gërëm. merci beaucoup sëñ Saliou di la ñaanal aussi gàmmu ak jàmm jëf